mbokk jullit yi maa ngi bàyyiloo xel sama bopp di leen bàyyiloo xel ci ngeen dégloo xel bu baax fi ñu jëm ak lii nuy wax jamono bu nekk nag ci sunu réew dangay gis fitna yuy am di yokku coow di bari mbokk jullit yi nañ leen taxaw ñun ñëpp ñu def waqfata ta'ammul ñu seetlu lii xew ci suñu dëkk ci jamono jii ci ay mbindeef yoo xam ni dafa mel ni dañ leen a certifié ci xas yonent yi ak tuuti leen sewal leen tuumaal leen te nag wax dëgg yàlla nit ñi day dinañuy def lu bon lu bari waaye dafa mel ni man li may dégg ci lu bari ci ñii laa ko gën di dégg mbokk yi yonent al anbiya ashraful xalqi inda loolu moom defe naa ñépp ci dëppoo yonent yi ñoo gën ci kaw suuf yàlla moo ko wax mbokk yi yonent yi maasumun yàlla da leen musal ci def bàkkaar ak yenn bàkkaar yi mbokk yi yàlla musal na yonent yi ci jikko bu ñaaw jikko bu bon jikko bu salte rawatina njaaloo mbokk yi njaaloo ñaawul ah nan la nit di jëlee njaaloo di ko teg ci ku yàlla ni moo gën ci nit ñi ñaar moo am moom mi ko wax moo yées moo bon ndax ku nekk xam na ni yonent mënul bon ndax yàlla moo leen baaxal waaye nag laa xarwa dégg nañ fi moom ci boppam kilifaam wax loolu ci yonent yàlla nuux wax nañ ko ca yonent yàlla nuux loolu wax nañ ko kon su ñëwee moom mu wax lii dafa mel ni rek yoonu ndox la dégg nañ fi doomam wax laa même chose ci yàlla lu gën a grave ci yàlla wax lu mel noonu yàlla nga xamante ni ku ñu war a respecté la xale bu juddoogul tojagul ci fetti nen wax ci yàlla kàdd goo xam ni dangay ngay daal di jooy mbokk yi yonent du njaaloo ala nag di njaaloog jabari doomam jikko ju suufe ju bon ju ñaaw ju torox jooju war nañ koo teg ci yonent moom mi koy wax ku ko waxoon ci kilifaam àdduna tukki wallahi lii ñu yëkkati wax buñ ko tegoon benn kilifa ci suñu kilifay réew mii li ñuy njëkk a saisir mooy proculeur lañuy njëkk a woo waaw Umar Sall wax na dara ci suñu baay Oustaz Diaby wax na dara suñu maam on réclame son sa tête on réclame sa tête boppam la ñu soxla xalifa bu génn ñëpp génn ñëpp wax parce que seen bàyyi la ñu sewal ñoom ñuy sewal ki yàlla bind ku yàlla yónni ab yonent li gën a doy nag nit buy wootewee xam-xam lii mu wax fa mu ko jëlee wax nañ fa lu contre loola xëy na liyee ko arrangé pour mu tas mbon dong la mbon dong la du leneen mbokk yi borom bi nee na kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba yàlla nee na dañuy fen baat bi ñu wax dañuy fen kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba te baat boobu ñu wax baatu yéefar la baatu kéefar la ku ko wax war ngaa tuub man na xam nga ñan laa yërëm ñi leen topp di leen déglu gëm leen teg leen fenn mbokk même boo gëmee nit bu newul ci dëgg ànd ci bërki démb dafa am ku ma woo ñuy waxtaan tàng na lool départ bi waaw lii coow gaa yaa ngi coow maa ngi lay xaar boo ci waxee naa daal sa kaw ma ne ko yàgg sa papa sa maam ñëw leen faalewu ma leen dinaa ci wax insha allah su wax ci jotee moom dama ciy wax par ma nag sa sëriñ bii lii mu wax nii danañ ko teggee ñépp wax nañ mais maa ngi xaar di man sama wàll danaa ko wax mu naa ah, ma ne ko ki nga àndal jubut jubut démb ci guddi six heures am na ku ma woo wax la même chose dama oustaz ñun dey dañoo gëmoon nangam nangam waaye génn nañ ci oustaz léegi dañ lay déglu yow ndax li ngay wax nii loolu am man ah man de waxuma kenn waaye dama ni lii lii xam ngeen ni lii moom kuy topp aw nit moom di sukk ci wetam gëm ay waxam moom mu wax lu contre alquran wax lu contre sunna nga ni moo ko sañ moo ko tey war ngaa xoolaat sa bopp da dañ la endoctriné te gis nga lu bëri ci yenn këru diine yi sectoriel la gën a jege wallahi dañuy endoctriné nit ñi dañ leen di dofloo ba bu yonent bi ñëwoon wax duñ la gëm parce que yi ñu sol ci seen bopp yi la dañ leen a solo solo sol ba booy xool nit ki di daanu di yuuxu di wadd mais genre animosité bii da ngay xam ne li ñii nit nekkatu fi mais nit il faut nga am savoir vivre sa xel di xalaat kilifa beeg ñëpp a yem ku teggil yàlla ñoo la eh sëñ bi da ngaa juuma ah, tuubal da war a tuub ndax lii ku ko waxoon sa papa du la neex ku ko waxoon sa yaay du la neex kon yajibu ala kulli muslimin an yudafia an jamii al anbiya in taarada lahum ahadun bi sab dafa war ci bépp jullit mu défendre yonent yi su kenn waxee ci ñoom lu ñaaw kon sama devoir la li ñépp wax wax nañ dëgg te nag ma ne ko xam nga li gën a ruslu waa ji ne ma naam mu ne sa sëriñ wax ba pare comédiens yi sax di ko weddi wallahi loolu laa ko wax ma ne ko comédiens yi sax ñu ngi koy weddi kon war nga xam ni wax bu terre la wax te it wax bu ñaaw la maa ngi koy digal ne ko na tuub rëy baaxul kenn du rëy ci kanamu yàlla kii mu waxal lii moo gën baayam gën maamam gën ku gën maamam ndax yàlla moo ne kii yonent la daawud yonent la mbokk yi dafa am ñoo xam ne yonent bi noonu la ay dajjaal lañ ñoo yées ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na ñoo xam ne dañuy jël seen bànneexu bakkan di ko naxee nit ñi yonent bi noonu ne innama axaafu ala ummati al a'immata al li ma gën a ragal sama xeet mooy njiit ay guide yoo xamante ni dañuy réeralaate ay guide la wax a immatal leen ay guide yoo xam ni dañuy réeralaate nga topp leen di leen déglu du ñu la waxal lu lay jëriñ ci jaamu yàlla doo toog mukk nga dégg ñu lay wax julli woor tawhid jaamu yàlla non loolu dañ ko dépassé dañ lay indil ay yu xomaat ci sa bopp rek di la dofloo ngay mbëkk miir di yuxloo di way waaja di way ngand c'est un philosophe gis nga loolu du philosophe philo dof la philo dof dëgg la dof mooy toog di xas ku yàlla tagg mbokk yi borom bi nee na wala tarkanu ila alladina zalamu fa tamassakumu nnaar yàlla nee na yéen taalibe yi yéen nit ñi bu leen jeng topp tooñkat yi kon ñu ànd ak yéen safara de wala tarkanoo même boo nekkee taalibeem bul jàng mu ko jëm ci moom bu ko jàppale ci bunt bi bu ko jàppale ci lu mel nii ndax lii boo ko jàppalee mooy ànd nga keneen bàyyi yàlla te fépp foo xamante ni nit mi ngi attaqué yàlla attaqué yi yàlla ni bu ko kenn attaqué soo ko jàppalee ni ko yàllay alagee la lay alagee feeg tuubul wala nga tub kon wala tarkanu ila alladina zalamu fa tamassakumu naar mbokk yi ñu jël ñetti aaya rek ci yonent yàlla daawud li borom bi wax yàlla yonent bi lay waxal jamono bi ko waa Quraysh di dal di ko xas di ko wax lu ñaaw bëgg lu ko metti yàlla def ko ni isbir ala ma yaquluun wadkur abdana daawuda yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam isbir ala ma yaquluun li ñu lay xas gis nga nit léeg-léeg day jàpp fi nga gën a bëgg fa la lay xase wallahi nit xas na yonante bi ngir man ngir bëgg man lu ma metti <laughs> te fekk xamut isbir ala ma yaquluun yàlla ne muhammad muñal li ñuy wax yahud yi danañ ko def nasaara yi danañ ko def musrikuuna yi wala ñu mel ni ñoom danañ ko def dañoo bëgg attaqué sa ngëm-ngëm ngir merloo la naqaral la isbir ala ma yaquluun léegi nag ni ngay muñee xoolal yont yàlla daawud waskur abdana daawud zal ayd daawuda borom may borom kàttan xoolal li ñu ko waxal lu ne tuumaal nañ ko ko est-ce que daawuda xuloo na est-ce que xeex na déedéet kon yow muhammad isbir ala ma yaquluun muñal li ñuy wax amul benn problème su àtte jotee dana àtte waaye ki ñuy wax nii innahu awwaab yàlla moo ni daawuda innahu awwaab delluwaakoon ci yàlla la yàlla dina jël kuy dell ci moom muy nekk ku bon di njaaloog jabari doomam yàlla dana ko def yàlla dana jël ku mel nii tagg ko moom muy bàyyi yeneen jigéen bàyyi soxnaam di ñëw ci ay jabaru doomam jëf ju salte ju ñaaw ji bëy sax rus na koo def golo sax rus na koo def nga di ko jiiñ ab yonent yaa yées beneen aaya bi lan la borom bi wax wa wahabna li daawuda suleyman ni'mal abd innahu awwaab yàlla nee na yont yàlla daawud maa ko may doom ju baax te doom jee ko ëpp daraja daawud moo ju suleymaan mais suleymaan moo ko ëpp daraja ci wàllu nubuwa wa wahab naa li daawuda suleymaan yàlla nee na daawud maa ko may yonent yàlla suleymaan ni'mal abd allahu akbar yàlla daawud la tagg ni'mal abd sama jaam bii moo baax ni'mal abd yow nga ni jaam boobu day njaaloo borom bi nee na innahu awwaab delluwaa koon ci yàlla la mbokk yi yontu yàlla daawud da doon sabbal ba montagne yi di sabbalal yàlla picc yi njanaaw yi xorondom yi ndax daawud ni mu mënee sabbal yàlla dafa tàmm di sabbal yàlla ba buy sabbal yàlla montagne yi di ànd ak moom di wax borom bi nee na wa saxarna maa daawuda wa saxarna maa daawuda al jibaala yusabbihna wa tayr wa kunna faailiin yàlla nee na dama tàggatal daawuda sax montagne yi même njanaaw yi bu daawuda di tudd yàlla ya allah picc yi naan yaa allah daawud bi naan yaa rahman garab yi naan yaa rahman mbokk yi teraanga bu toll nii ku toll nii ci ngand ñu di ko tuumaal tuuma bu mel ni moo tax Sénégal lu ne lu ne lu ne mën na fee ñëw ndax ñun ay dofa ñu jiite moo tax borom subhaanahu wa loolu la wax dee leen ñaan rabbana laa tuaaxidna bi ma faala sufahaau minna am na ñoo xam ne ay dof lañ donte dañ leen a jiite wéruñu su ngeen leen toppee ñu dugal leen borom bi yemut foofu nee na maa may daawuda ngëneel wa laqad aataynaa daawuda minna fadla yaa jibaalu awwibii maahu wa tayr yàlla nee na daawuda maa ko may ngëneel maa ko may ngëneel mbokk yi lii rek dafa doy lii rek daa doy ci tontu bi ki yàlla yëkkati tagg ko yow mënoo koo suufeel yow yaa ciy suufee rek moo tax théâtre kat yeeg comédien yeeg ñépp dañuy daal sa kaw ruslu na nag ci ku ñuy woowee borom xam-xam ki ñuy woowee guide religieux ki ñuy woowee ngand ay théâtre sax dina la tontu loolu rek doy na tontu ma ñëw ci benn mbir mu gàtt xoola yont yàlla muhammad dafay roy ba roy yonti yàlla daawud te xam ngeen yonti yàlla muhammad moo gën yonti yàlla daawud daf ñoo digal yonent bi nee na ahabu salaati ila salaatu daawud wa ahabu siyaami ila allah siyaamu daawud nee na julli gi yàlla gën a bëgg ci naafila mooy la yonent yàlla daawud koor gi yàlla gën a bëgg ci la mooy koor gi yonent yàlla daawud ñu ne ah mu ne yonent yàlla daawut da doon tëdd première guddi gi bu reeree tëdd nelaw ba trois heures du matin mu jóg julli julli julli julli julli ba 6 heures mu noppalu tuuti julli fajar continuer tudd yàlla kon yéen sama xeet jël leen lu mel nii ku bëgg dinaa di naafila guddi del teel a tëdd del noppal mais yonent yàlla Muhammad dina dina roy ku baaxul ndax yonent bi dina roy ku baax surtout ci jaamu yàlla mu ne ci wàllu koor yonent yàlla daawuda day woor tey dog suba moo tax ñu koy tuddee siyaamu daawud mbokk yi du jeex ngëneel yi nekk ci yonent yàlla daawud kon yàlla nañu yàlla jéggal yàlla yërëm ñu yàlla yàlla boo ñu jàppee suñu dof yi ci suñu kanam yàlla ñoo ngi ñaan nga dellu si leen tuubal leen nangul leen ak tuub yàlla ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu allahumma ahdina fi man hadayt